seetlu bi daanaka bare nay njaboot yoo xam ni seen loxo jotul seen ginnaaw waaye tey jii jotuñu ci ndimbal li nga xam ni dafa soqe ci nguuru Sénégal jaarale ko ci fond force Covid 19 ngir ñu jox leen loo xam ni danañ ko war a mën a dundee loo xam ni nguur gi moo ko diggee woon ci jamono jooju nag kii di Lassana Kanté toogal fi ànd dooleel Khalifa Sall daal di jël ci kafakaam jàppale ay njaboot yoo xam ne ñu ngi fii ci diwaanu Tambacounda. 10 euh, tonnes la ari ak 10 euh, tonnes ak à peu près mille et bi doon d'huile de cinq litres moom la ñu euh, joxe tey waat Tamba yëpp. bëgguma gis waat Tamba di taxawaalu euh, ngir lan euh, du riz donc moo waral tey ñu jóg joxewaat encore pour que tout le monde mën a am parce que réew mi ñëpp xam nañ ni que gouvernement bi wax dëgg yàlla li mu doon wax ak li am ci terrain bi dafa ute. ci lu aju ci jamono ji nga xam ni seetlu na ñu bëri toppatootuñu li ñuy duppee geste barrière takk ay masque raxasoo gel wala dox yu ni mel Laasana Kanté nee askan wi dañoo am mbetteel. parce que nit ñi boo gisee solutuñu masque faaletuñu coronavirus bi dañu amatul espoir ndaxte eh, ñi eh, ñi ñuy diriger ñoom ñoo daw seen eh, responsabilité donc tey le peuple aussi franchement parler euh, il ne croit plus à ça. leneen lañu lu ñu mën a jàpp mooy ci quartier Liberté ci Saare Gileel ci jàll bugg ak ci Pont ak ci yeneen i quartier am na ay kàddu yoo xam ne ñu ngi jib di wane ni ñoom rafetlu wuñu dara anam yi nga xam ni noonu la ñu tànnee ba noonu la ñu joxewee leen ci ndimbal li nga xam ni mu ngi soqeekoo ci nguuru Sénégal